Heavy Mess.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 mala yi tamit naka noonu danañu feebar ñu seeti vétérinaire saytu seen jàngoro ba gis ko sakk ki saafara waaye nag jàngoro réew mi moom kenn saytu ko ba ki sàkk saafara moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca Tambacounda doy na war ab réseau de prostitution bu mag daal la fa division nationale de lutte contre les trafiquants de migrants démantelé ma ne ay nigérienne ay sénégalais mbir mi mu ngi xewee ca fa ñu naan Kizambugu ñaari nigérienne yu ñoo fa ñëw dal luwe ab kër occupé kër ga di fa def seen activité cagatu maanaam jaay seen bopp pëtëlëw te kër googa nag ab bu ñu naan em makalu moo leen ko luwe woon te paa boobu sax nee ñu jàpp nañ ko ay yooni yoon ci lu ni mel paa di borom kër gi di em makalu ab waay bu ñu naan pee jàllo bi xam ne moo nekkoon collaborateur ñaari nigérien yooyu la luwe kër gi naka noonu ñu jël kër gi soppi ko def ko ab auberge moom daal fu bu vingt heures ba zéro heure jotee clients yi dañuy rang kii bu duggee génn kee dugg kii bu duggee génn kee dugg ma kon ko ndaw xaw a dee bu ko defee ñaari nigériens yooyu bu ñu nekkee ci li ñu nekk ba zéro a ASP bii di Bekante nga xam ne moom lañu ñu ngir saa bu ñu wàccee moom moo leen di yóbbu seen kër moo leen di gunge ba ñu yegg eskay groupe bu mag boobu nag ma ne réussir nañu woon teg ngandu maamu réseau prostitution ci diggante Nigéria Sénégal doon ko jaaree ca Mali ma ne mooy lu ñuy wax réew mi comme rido may ga fu waay neex jaar bi ñu leen tegee loxo nag jàppale na ñaari recrue yu bees yoo xam ne ñu ngi leen jëlee ca Nigéria te ñaari recrue yu jigéen yooyu bi ñuy dugg si senegal Mali lañu ñu jaar <laughs> cay réew kenn ki di wuyoo ci turu A Johnson ka des di wuyoo ci turu A Simiéré fi mu toll nag ka leen jiite ñoom ñëpp di M Moussa ak ka ñu naan P Francis ASP bi di wuyoo ci turu Ndoumbé Kanté ak P Diallo mi nekkoon seen collaborateur paa ba leen luwe woon kër gi di am makalu ak ñaari recrue yi jigéen yu bees ñu jëlee woon Nigéria di a Yere ak A Johnson ñoom ñëpp daal dinañ leen defeere ca tribunalu grande instance bu Tambacounda waaw góore waay moo tax ma ne réew mi xeetu feebar bu ne dana fi du moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax cité mixte nag war nañ koo xoolaat ndax cité boo xam ne la xew ci ay scandale dal bari na ba maara deetaali bi yoon nag ab mafia de sexe bu mag lañu fa demantale ma looy wax ni lii moo tax réew mi umu ñi def lu ni mel ñooy yenn élément sûreté urbaine muy benn góor ñeenti jigéen tey nee nañ benn xale bu jigéen bi daanaka at yi mu ngi toll ki fukki at ak juróom-ñett bopp fi mu ne defeere nañu leen di leen toppee li tubaab naan proxénétisme maanaam di jaayloo ay nit seen bopp ak incitation à la débauche maanaam xërtal nit ñi ci mbon ak détournement de mineur jëfandikoo ay appartement yoo xam ne amul benn illégalité di ci def mbon réew mi appartement yi lañu ñu war a xoolaat da xew doy na waar de groupe boobu nag appartement ya nekk ci cité mixta lañu ñu luwe woon occupé ko ne ca doon def ay activité yu doy waar laa wax te nag boo ñëwee ba gis seen publication yi maanaam da ngay waaru sax publication yi yiñ ca bind doy waar ay préliminaire yu saf-saf nga mel ni ku nekk ak sa coro li waay publication yi dañ ca bind votre satisfaction notre priorité ay waay waay diggal li waay ba tey ci publication yi boo fi ñëwee gis fi ay massage plus yu doy waar ay waay déggal ma li waay ba seeni dëkkandoo nag bi ñu gisee lu ni mel jaabante beeg bëri ci appartement yi ci lañ leen dénoncé bi police ñëwee ci seen appartement yooyu teg nañ ci loxo ku ñu naneen caaw m seen n sankare kaambub ak dese seen bi nga xam ne moo leen góoral bi ñu saisiré seen portable yooyu nag ci la ñu gis ne portable yooyu lañ doon joxe rendez-vous yi waay waay ma ne réew mi tas na laa wax kannaaw ba ñu leen sëkkatale lanket leen kenn ku jigéen ki ci boppam nee na moom dafay jaay boppam kayit sax am na ay kayit way way way waay mim des ne moom ñëpp xam nañ ne massage lay liggéey ay waay waay waay waay yi xeetu massage réew mi léegi yi fi xew ak yi ngay dégg ci sa nopp da nga naan ñi dëkkuñu ci réew mi te boo xoolee seeni seen i tur da ngay xam ne ay Sénégal njaay koy def ñu doom yi rëcc nañ ñu de mu doonoon xeen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz